ci télévision bu mag bi ñu naan la 7TV la télé qui nous ressemble et nous ressemble télé bi ñuy nduru ba noppi te di ñu dajale tubaarkàlla macha allah tey moo fi nar dajale ay artistes yu am solo loo xam ne surprise lay doon tubaarkàlla macha allah dara do doy tubaarkàlla ñu ngi leen di nuyu di leen déwénati di ñaan yàlla ngeen baal ñu baal nañ leen yàlla nañ yàlla boole jéggal di ñaan yàlla yàlla def ci suñu Sénégal gi jàmm def fi sutura def fi teraanga daa yi man ñu ñaan leen ko tubaarkàlla spécial ndëwënal moom la ñu wax ak yéen 7TV di nuyu nag may bu baax di ko baalu àq di nuyu Papis Mbay di ko wax Adama tubaarkàlla noonu lañ koy ñëwee wax ko Penda tubaarikàlla macha allah wax ko Pape Maguette tubaarikàlla ba ci euh, suñu càmmiñ yu baax yi nga xamante ni ñoom ñëpp gën riis la 7TV day tele boo xamante ni ñi ci nekk ñëpp ay leader lañu tubaarikàlla am jom am fulla pambe ngi noonu tubaar tubaarkàlla lu mu defarul baaxul ñu di leen wax nag ñu ngi ci tubaarikàlla commencé ah Mara Thiam tey dara du sedd de Mara Thiam tubaarkàlla sama doom ju góor ji leen a demoon tey ci guy gi macha allah jëlee leen fa lu ama ama ama am solo tubaarkàlla tam man mi ngi koy caali tubaarkàlla taxaw jël naa ay surprise artistes yoo xamante ni ay ndaanaan lañu ndaanaan nag foo ko déggee dañ naan ndaanaan kuréel faddileen tubaarkàlla moom lañ leen indi ngeen teg foofu seen baaraam ñu ànd ak yéen kàlla macha allah dem ci Mara Thiam nuyu nañ leen déwénati jërë ngeen jëf mbokki xarit yi bëggati nañu bu baax baax dajati ak yéen chaîne chaîne de télévision bi ñu nuru ba noppi di ñu dajale la 7 TV la télé qui nous ressemble et ñu leen di déwénati di leen baal àq te di leen baalu àq ci bésu tey bi nga xamante ni dafa tombeek bisu it di bisu julli di tabaski di feet boo xamante ni àdduna wërgal këpp rawatina jullit yëpp dañu koy màggal 7 euh, TV baaxoo at mu jot muy ànd ak yéen di seeti ñenn ci ndaanaan yi ci réew mi ci célébrité yi di toog ak ñoom di waxtaan ak ñoom tey mu fas yéene nekk benn spécial tabaski boo xamante xamante ni édition bu spécial lay nekk plateau bu spécial lay nekk entretien bu spécial lay nekk li ko waral mooy dañuy dalal koo xamante ni c'est une personne spéciale li tax ma wax c'est une personne spéciale mooy nit la boo xamante ni dafa am ay facettes boppam dafa am style boppam style bu particulier mu mbëru làmb boo xamante ni c'est un champion un boo xamante ne il n'est plus à présenter il a su s'imposer fexe ba bokk ci làmb dugg ci làmb ci atum 2006 jàpp 2007 tel cee wane boppam fësal ci boppam tegale benn dynamique de victoire bu am solo ku daan Siteu ku daan Nees ku daan Ama Baldé ku daan Mbaye Diouf ku daan Amaneex kooku xam nga ne champion la il se de son vrai nom wala boog tur bi ñu ko xamee ci làmb guy gi am tur boo xam ne da koo dab ci biir làmb ñu doon ko wax le roi du simpi lan moo ko waraloon mooy mbër mu jàpp rek day aras ba ci kaw dóor ci suuf gars yi ràññee ko itam ci style bi nga xamante ne amoon na ko ci ay kàddoom indi kàllaama gu bees di wax français yoo xamante ni li yàlla xam doy na tey on aura le plaisir ñu ànd ak moom gunge suñu ay téléspectateurs sur les antennes de la 7TV ñu ngi kontaan bu baax a baax fekk si ko fii ci biir këram fas yéene xam ana nan la jullee ana nan la passé feetu tabaskeem lu jiitu loolu ñu dalal ko bàyyi ko mu nuyu ak suñu ay téléspectateurs ak sénégalais yëpp guy gi c'est un plaisir ñu ngi kontaan ci seet bi ñu la seet si waaw Mara maa ngi lay fay di wax ni onze billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaan rahim ginnaaw ban sant yàlla julli ci yonent bi sant suma ñaari waajur di nuyu waat euh, waa ba Seck bu baax di ñaanal Baye Ass Seck yàlla oyofal yéen bi sama xalifa général maam Cheikh Ahmed Tidiane ak Baye Abdourahim yàlla yóbbale àjjana yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def di nuyu waa Thiénaba bu baax a baax a baax nuyu suma papa ak suma yaay suma grand frère Modou suma rakk Babacar suma rakk ndaayaram Aïssa sama soxna bee bi maa ngi koy nuyu bu baax nuyuwaat waa Thiénaba bu baax bàyyi ma kenn suma absa suma soxna grand frère maa ngi koy nuyu bu baax a baax nuyu suma suma sama yaay Waré Sarr nuyu képp koo xam ne wax dëgg yàlla ngay jàppal ko bi di ko bëggee di nuyu waa 7TV. AMP <laughs> ah, nous sommes nous dans nous rek. nous sommes nous dans nous la waaw di la di nuyu seen directrice bi xaw ma directeur bi. waaw Maimouna Ndour vraiment. télé bi sama du du gan moom. yaa ngi ko nee Maimouna Ndour kay war nga xam ne directrice la. waaw non damaa juum man man maa topp ma ay français. déedéet yàlla man yàlla topp ma ci ay français la di nuyu Maimouna Ndour vraiment. Mm-hmm. c'est pas la première fois c'est la six fois vraiment kon loolu télé bi suma télé la ñaane yàlla rek yàlla defal leen jàmm yéen ñi fa nekk ñëpp euh, parce que loolu mooy àdduna àdduna wax dëgg yàlla bu ngeen nekkee li nga ñaan li ngay jëkk a ñaan mooy yàlla defal leen jàmm ci liggéey bi ngeen liggéey hmm. ci ngeen gën a mën a retrouver lu bëri bëri te yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla nuyu sa caméraman yi nga àndal hmm. nuyu sama waa koñ waa ku ci mel ni Pape Ndoye euh, John Sina Bolo Pape Tonn sama taalibe Lamine Niass Omar Der Faye Niass sama dëkkandoo yi waa kër mère mère mbay waa kër seex Ndigal Faly maa ngi bu baax a baax a baax képp koo xam ne daal wax dëgg yàlla di leen baal àq ñëpp nag di baal àq ñëpp di la wax ni déwénit yi di wax ne bonne continuation bonne révention bonne longue vie bonne longue santé ñu ñëpp dund <laughs> amiin yàlla na ñëpp yàlla ñëpp dund di la wax ni kan uh-huh. ñu xaar question yi rek question réponse ñaan yàlla lépp lu ñu fi wax rek uh-huh. muy euh, muy loo xam ni day neex sénégalais neex àdduna yàlla mosuñu ci accident làmmañ yàlla mun na ko yàlla na ko yàlla def Habib Diarra bi question yi moom dañu koy tàmbalee ci bisu julli gi tey tabaski la euh, guy gi doomi jullit xëy tabaski tey bëgg nañu xam nan ngay passé sa tabaski boo xëyee julli ji rey sam xar euh, nan la journée bi di déroulé waaw Mara da ngay xëy euh, nuyu paa bi sa papa moom vraiment loolu yar nañ ci mhm. waaw ndékki ba suur nag. Mhm. ndékki bu ñu ñun dañuy naajee naaj yi jógee dànk jullikaay quoi. heure bi ñuy jógee dànk jullikaay heure boobu noonu day naaj parce que midi. nga doog a rey ñëwaat bala nga añ day naaj. waaw boo ñëwee fekk bee bi dina defar lakk gi ba pare ba ñëwee nga doog a lakk quoi nga a lekk lakk bi quoi. xaaraat ba ngoon bi nga doog a dawalaat bu defee nag boo dawalee ba pare ànd ak soxna si xam nga dem ci sama gars yi ami d'enfance ku ci mel ni Mansour Ndiaye Cheikh Mbaba. Mor Seck Gora Ndiaye maam Serigne Niass Turki ak Baye Serigne Sylla Turki mhm. ak maam Serigne Turki ñu leen nuyu bu baax a baax fan ami ami d'enfant bi mhm. xam nga ñoom ma dikkee ñëpp ñu toog waxtaan ak ñoom Talla Ndiaye doogo mu nekk retrouvaille waaw retrouvaille ami d'enfant la ñoo defandoo lépp mhm. waaw ñoo defandoo lépp vraiment ba tey mi ngi rafet kon def naa duñ mën lu dul rek xam nga sant leen bu ñuy def émission wala ni carrément xel mi jugal leen ci parce que loolu lépp boo seet depuis 1986 ba tey foo xàmmi ko nga euh, nga kii kat wala lii ñu ñoo defandoo lii chaque jour nga di ko nga di ko fësal mm. kon defe naa dañ koy fësalaat saa bu ñu def émission rek yàlla defal ñu jàmm seytaane ba dugg suñu diggante quoi mm. noonu daal lañ koy defee boo ko defee boo ñëwaatee nag guddi gi mm. ñu defal soow yu ndaw ndawaan yi am gën a am bé mais guy gi dama mel ni ko bëgg lekk non damay lekk damay maase mara man yooyu nekkuma ci sax euh. maase bien donc maase bien dóor bien dormin bien dama man damay lekk loolu kii saay parce que man dama yor soxna su man togg nag. ndeysaan yàlla dama yor mm-hmm. soxna moom dafa sob mm-hmm. man sama soxna dafa sob li tax mu sob ci internet bi lay fanaan lu mu gis dina ko capté. macha macha allah yaa de yaa de mémoire bien lu mu gis dina ko capté su xëyee togg bu ko toggee da nga kii ndax dafa jàng dafa nekk autorité affaire yooyu. fekk nag boobu day xam nga day day ci internet bi lay xëy ay bagages quoi te des mu toggal plat boo xam ni. Mm-hmm. ñi jàng waaw ñi jàng sax hôtellerie ñoom ñoom kiiwuñu ko quoi xamuñu ko mhm. kon loolu tamit sant yàlla mhm. parce que tamit mënoon nga am soxna soo xam ne xam nga ceebu ñebba la lay toggal dëxin sombi yooyu te du jaar yoon sax jaar yoon te lekk di gañe doo ci mën dara <laughs> mais ngi lay toggal yoo xam ne yu baax mais mais guy gi la moo la gënal ci xar mi yow tabaski la moo la gënal lakk bi togg soo non xaar mi moom maara li ma li ma dox say Abdou Karim muy reetaan rek ma ko say Abdou Karim reyal ma xar soo ma rayee xaar daal mënuma guy gi loolu ci soxlawul ci xaar mi ma ne ko ñeent tànk yi ngay génn bokk ci ak baat bi li des lépp soxla naa ko Sëñ Abdou Karim moom neen looloo koy te man loolu laa gëm xaar mi lépp lépp dama koy mangé lépp koy mangé calgeen bi yëpp lépp dama koy mangé moom bopp bi rek ngay génn bopp bi ngay te bopp bi dañ koy fees dañ koy supp bopp bi dañ koy fees dañ koy supp béjjéen daal mooy génn ak ñeent xar supp non ñeent dañ koy raxas lakk ko pour pour pour dans deux mois euh, tam xarit Ah, guy gi dafa mel ne mag a ko yar parce que li ngay wax noonu bareetul lu ma koy gis yow wësam ngay wax de waaw dañ koy wësam ko ci kaw man sama yaay dafa gëm aada ndeysaan sama yaay bu kii rek day jël jël temps ndeysaan di ko nuyu bu baax sama mm-hmm. yaay muy koo xam ne vraiment yaay ju mat yaay la waaw moom sum ba ma xàmmee ba tey mm-hmm. moo wax dëgg yàlla yaay ju mat yaay la man tamit ma am baay boo xam du ma ni euh, mais baay bu gën baay gis ngeen tubaarkàlla macha allah Mara Thiam sama doom sama xarit li mu dem yóbbu ci guy gi tubaarikàlla muy jàmbaari fàkk tëdd macha allah tabaarakalla dans quelques instants nag macha allah dinañ leen indiwaatal yeneen i surprise mara surprise yi jeexagul de tubaarikàlla teg leen foofu seen baaraam ma ñëw nag ak sama invité tey indil naa leen tubaarikàlla macha allah koo xamante ni bu nee der seen xel dina dem ci ñu bari tubaarikàlla macha allah ndax jomam yiwam fullaam faydaam ak mën a woyam tubaarikàlla macha Eh, bay tey fii fii mokk rumbux surprise rek lay doon. waaw mais salaamaaleykum. waaleykum salaam Yves Niang. ajaratu Ngoy Mbaye. <laughs> waa sama Yves. mais namu naa la waay nuyu naa waa lii de